Euh, xam naa euh, tomb la boo xam ne bu am solo la jazakallahu xayran ci jël siwaat jëmmi wax ci diine dafa doon loo xam ne doonut lu woyof ndax borom bi tabaraka wa taala dafa def jëmmi nit ki ci boppam responsabilité am bi ci gën a rëy moo di responsabilité al kalima mooy wax nit ki li muy wax su fekkee dafa doon lum xam te bu ko waxee mu jariñ kooku sañ naa wax la ca def nag mooy mu sellal ko ak tiyaaba jëm ca war a am di jël seen boroomam su fekkee ne li muy wax xam na ko waaye bu waxee du jariñ kooku warul wax li muy wax xamu ko warul wax tomb yooyu ma wax yëpp nag tey comme ni ko Cheikh Abdul Wadud waxe boo seetloo bëtti nañ ko tey moo tax Cheikh Nasiruddin al Albani rahimahullah daf daan wax ne e, nit ñi dañoo tëjoon baabul ijtihaad ci ay jamono nee na fa fatahnaahu parce que fa'lan Cheikh Nasiruddin al Albani ci ñi gën a sonn ci delloosiwaat nit ñi dañu war a góorgóorlu gëstuwaat amaat xam-xam jàng fiq jàng xadis ay mujtahid woon ci ñooñu la bokk nee na bi ko nit ñi tëjee ne ijtihaad amatul li fi nekkoon rek fi am nee na nun noo ubbi bunt boobu wala ci ñu ko ubbi ci lan bokk nee na fa jaa ash-shabaabu fa xattamuuhu nee na ndaw ñi biñ dikkee ub yemuñu ci bunt buñ ubbi waaye ne dañoo dajji bunt bi sànni ko ku ñëwati rek dugg wala yaasu billah kon loolu asma la muy benn crise boo xam ne dañ koy dund ci biir ci biir njàng bi nga xam ne ci lañ nekk euh, dadi nag am na yu bari yoo xam ne ci yi ko sabab ci la bokk mooy li ñu tudde liberté lu neex waay wax xam nga am na réew yoo xam ne bu dee wàllu diine dañ ko organiser ba fii mu nekk sañuloo àgg ci jàkka ñi julli rek nga jóg taxaw di wax ak koo mën a doon dañ ko organiser ba nga xam ne boo doon wax xam nañ ci war a wax ku mu doon ak li mu war a wax lu mu doon ak fan la ko sañ a wax su boobaa yow yaay sañ wax waaye boo doon borom xam-xam boo xam ne réew ma nga dëkk jàpp nga ne yaa ko ëpp xam-xam nga dikk te amul autorisation pour wax ci jàkka ji sañoo wax ci jàkka sañoo def conférence publique lu dul su fekkee ne borom xam-xam yi ñoo la nangul ne borom xam-xam nga loola organisation la lu mel noonu noonu amuñu ko liberté li ñu tudde diine moom dañ koo ubbi lu neex waaye rek na ca wax ci gàllankoor yooyu ci la bokk. beneen bi ci def mooy système yi tëraliin yi mu tër nii xam nga ñu ngi def ak conférence nii toujours système bi muy tëdd mooy conférence bi na ñëw kii day parcenté su noppee kii gaaral su noppee laaj yi moo ci dem wala déet kooku xamee wuñ ci kii ku mu doon ku conférence ku ne rek noonu lañ la ko bëgg a tëral te laaj yi bokk na ci yi ci gën jafe laaj boo xam ne fi nga toog lañ la ko laaj nga bëgg koo tontu. léeg-léeg da ngay jàng biographie borom xam-xam yu jëkk ya ñu lay wax ne fulaan kaana yufti fil hajj loolu ñu bari ñu koy jàng xamuñu lu mu doon dañoo jàpp ne rek day day ubbee ci masalay aj wala yu mel noonu ñu ne diw sàngam day daana ubbee ci aj lañ ci jublu mooy daana nekk ci biir aj ga nit ñi di ko fa fekk di ko laaj mu di leen tontu liñ ci jublu luy loolu moo di ne béréb boo xam ne daf koy nekk te àndul ak i téeréem ndax kuy aji doo yóbbaale ay téere kon suñ dee tudd yem rawee nit ñi dañuy wax nangam ak nangam ak nangam ba ne àgg na sax ci da daan nekk ci biir aj ñi di ko laaj xam-xam muy tontu parce que da doon tontoo foo xam ne yorul ay téere kon loolu xëy na mën naa am ci ay diggante wante doonut loo xam ne ci ñëpp la mën a amee benn ni nga koy mën a defee da nga doon koo xam ne ku yàgg ci biir fatwa ci ngay doon te fekk jàngoon nga lu bari ndax lu wér mooy boo yàggee ci biir fatwa da ngay dem ba laaj yi ñu la laajoon mooy del siwaat kon la nga demoon jàngiwaat ko rek mu ngay del si di ko répété waat dana néew nga dajeeg laaj boo xam ne gisoo ko woon bu jëkk kon kooku mën naa dem ba lu mel noonu mu toog fi béréb di tontu laaj yoo xam ne yu mel noonu la waaye ndaw loo xam ne day door a tàmbali di jàng usus yi nga xam ne fatwa ci boppam ca lay tegu muy base yi nga xam ne ca la tegu la ca dagan la ca daganu laaj bi suñ la ko laajee noo ko war a tontoo laaj bi xool sax valoriser laaj bi taqwiin ko ba xam fan la njariñam toll ak loram yooyu doonut yoo xam ne ñiy wax tey ci diine yëpp jéem nañoo bàyyi loolu xel moo tax euh, jëmmi fatwa ci boppam doon mbir moo xam ne mu seetaat la mu aajo la moo tax man jamono yu nekk damay faral di woote di ko wax bind naa ko wax naa ko ci ay ndaje di wax ne waa réew mi ñi fi diine itteel yi fi it itteel nañu dajaloo pour benn conseil supérieur boo xam ne wàllu fatwa moo fi tax a jóg bu dul ab organisation boo xam ne yeneen i mbir la sax na loolu tax bokk nga xam ne su masala ñëwee boo xam ne bii masala doon na boo xam ne xeet bi la concerné ñoom ci seen jëmmi bopp ñu daje xool borom xam-xam yi gëstu ñu daje ne masala bi lii la ci sharia wax ñu jottali ko xeet bi su dee masala yi nga xam ne nag borom xam-xam yi mën na koo tontu bu ci ñëw ñu jox ko borom xam-xam mu tontu ko waaye daal defe naa ne mbir a ngi foofu moo xam ne mu aaje bàyyi xel bu baax a baax la eh, laaj bi bu am solo la borom daf ne lan mooy mbir yi nga xam ne day dimbali kii sàkku xam-xam ngir mu mën a sellal day dimbali kii sàkku xam-xam ngir mën a sellal na eh, jiitu mooy li ñuy wax tasxiixu niyya wéral yéene bi ngay jóg di sàkku ji xam-xam lan moo tax nga jóg di sàkku xam-xam loolu ku ko defagul woon ku nekk danga koo war a def ndax dundu doomu aadama ci boppam li ñu tudde objectif hadaf yéene li la tax di yëngatu lu mu doon li fee rëddoo ko bu jaree bind sax da nga ko war a bind bu dox sa diggante ak sa borom nga ni lii moo tax may jóg di sàkku ju xam-xam yàlla kese tax kooku mooy hadaf am bi moom dafa war a jiitu yéene ji moom mooy li nga def yàlla kese kese moo war a tax ñi jàppale diine yàlla génn ci ak lëndam yow fas yéene dugg ci ak leer fas yéene leer googu nga jëfe ko fas yéene leer googu nga jàpp jàppale ko nit ñi war ngaa toog fi béréb boo xam ne sa digganteeg sa boroom dangay ngay wax ne yéene ji moom a tax dara ku xam-xam jàpp naa ne yéene jooju su wéree sa diggante ak sa boroom benn léegi jaar nga ci aw yoon ndax da xam yow jamono yi ngay sàkku xam-xam li nga bëggoon yaa ngi ci yoon wa dox jëm fa wala jëmu fa ndax ki am objectif dox jëm fa bokkul ak koo xam ne amul objectif ki jëmul fenn dafa génn rek di dem lu mu dajeel baax na waaye ki nga xam ne daa am fu muy jëm su avancé dana xam ne avancé na su taxawee xam ne taxaw na su delloo gannaaw xam ne taxaw na dellu na gannaaw loolu mooy njëriñ bi ci jiit beneen ba ca tegu moo di sa borom tabaraka wa taala dana la defal tawfiq ci loolu ndax ginnaaw sa yéene dafa sell boo xam ne yàlla kese moo tax dana la defal tawfiq ba li nga xam nga di ko jëfe te boo ko jëfee dana sell te kon dana ko nangu moo tax dañuy wax ne nit ki ci boppam jëmmi sellal mooy li gën a jafe kenn ci boroom xam-xam yi day wax ne xeex na ma ak sama bakkan fanweeri at ngir sama yéene sell xeex na ma ak sama bakkan fanweeri at ngir sama yéene sell kon kooku doonut loo xam ne lu yomb la kon bakkan bi faaw da ngay bëreeg moom bul dem ba ko mukk jàpp ne jekku naa sama bakkan léegi lu may def yàllaa tax déedéet madaatulu seytaan dafa bari dangay tàmbali bari yeneen dikk dugg si waat ca su boobaa wéetalaat ak sa borom julli say rakka ñaan yàlla mu defal la tawfiq defal la ak sellal su ko defee eh, li ngay def incha allah dana mën a sell Eh, xam naa am na masala yoo ne <laughs> masala yu fiq yoo xam ne am nañ ci ak koy laaj ñaari fitna yoo xam ne fan lay jaar ba mucc ci benn bi mooy fitnatu shubuhaat beneen bi ci des mooy fitnatu shahawaat fitnay lënt ak fitnay bànneexu bakkan ñaari fitna yooyu ñooy fitna yi yées ci doomu aadama ñooñu ñooy yi nga xam ne bu ci nit ko muccee mucc na ndax fitnatu shubuhaat mooy bépp fitna boo xam ne dafa aju ci xel xelu doomu aadama muy lënt euh, suba nag li ci mën a musal nit ki moom mooy xam-xam jàng ngir nga mën a mucc ci mu lënt jàngeel xam-xam ni nga ko war a jàng te jàngee ko fa nga ko war a jànge saa boo demee ba am lënt demal ci borom xam-xam orientation bi nga war a am ci jàngeenu xam-xam bokk na ci yi lay ci lënt ndax am na téere yoo xam ne dëgg la téere yu baax la sax ndax day indi ay lënt ba noppi di ko tontuwaat waaye léeg-léeg téere yooya tàmbalee ci jàng xam-xam daf lay jaxase kon kiy jàng xam-xam li ñuy wax tafsil fi la war a tàmbalee mooy jàng li wér te leer te ay lënt nekku ca soo jàngee loolu ba mu sax ci sa ba nga xam ne xam-xam bi dëgër na nag soo jësatee am lënt da nga ko mën a tontu waaye demagoo ci xam-xam setteegoo benn jéego tàmbalee ci lënt ya ak xilaafaat ya ak werante ya kooku dalay jural ci sa bopp loo xam ne da ngay mujj ne sax far dara wératut ndax loo loo wax lu ne am na kenn ku ko weddi foofu mujj jaar te loolu musiba la moo xam ne lu ma lu mat a wattandi kon orientation borom xam-xam yi ci jàngal ndaw ñi ngir ñu musal leen ci ay lënt nañ tàmbalee ci jàngal leen di leer nañ ñi ci wàllu pas-pas jàngal leen ko ci wàllu jaamu yàlla yi suñ jàngee ba dëgër nag ba jàng adabul xilaaf door a dugg nag ci téere xilaafaat yeeg ci lii la wax ak keelee la wax ak mazahib yi waaye da ngay gis même ci rajo yi léeg-léeg nga dégg ku toog ci rajo wala ci média bi wax ne bii masala borom xam-xam yi am na ci juróom-ñaari wax ñii nee nañ nangam ñii nee nañ nangam ñii nee nañ nangam ñii nee nañ ba def joxoo ca masala boobu jàll ca ba ca def man damay wax ne ku mel noonu ñi koy déglu dañ naan waaw noonu nan la ñuy def kon bu fekkee ñëpp kenn ku ne daa am loo wax ba noppi nga bàyyi ko noonu dem kon loolu la jël nit lii andil nit ñi ay lënt ci la bokk kon lépp loo xam ne xeetu lënt la la cay musal nit gi mooy gannaaw bu ko yàlla musalee ndax ñaan itam nag lu am solo la ñaan boromam mu musal ko ci loolu mu am borom xam-xam boo xam ne moo koy orienté mu jàngal ko aw jàngaleen woo xam ne dana mën a jiital xam-xam bu wér door a dugg ci ay lënt bu demee dana bokk ci orientation yi mu wattandikuloo ko téere yoo xam ne ay lënt lay tasaare te téere yu mel noonu dañoo bari lool lool lool am naa nag shahawaat muy bànneexu bakkan li ca mën a musal nit ki bokk na ci mooy aaru aaru ci la ci mën a aar nag ragal yàlla mooy tomb bu jëkk bi nit ki mu dem ba àgg ci xam ne bu fekkoon ne nekk na koo xam ne kenn gisu ko na xam ne boromam mi ngi koy gis kooku mooy tomb bi jëkk sunu borom tabaraka wa taala mi nga xam ne moo ko bind yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nu ne yàlla moomu bokk na ci melokaanam yi mooy gisam ba ak déggam ba àgg ci dara ump ko ak fu nit ko mën a nekk mellentaan ba gën a tuuti ci lëndëm gi ca lëndëm këris bi mellentaan ba di dox ci foo xam ne ñaxa fa nekk jànje fa nekk boole ko muy guddi mu ne borom bi tabaraka wa ma ngi koy gis na muy doxe ma ngay dégg sax jéegoom ya na mu koy tegee nga xam ne borom buy déggee noonu di gisee noonu moom nga am kooku boo wéetee fi béréb dana la wóor ne mi ngi lay gis mi ngi lay dégg riqaaba zaatiya boobu muy muraqaba boobu nga xam ne mooy fuglu sa boroom ak bàyyi ko xel su dundee ci sa xol kooku dana la màbbal lu bari nag ci bànneexu bakkan yi ndax saa boo demee ba bëgg a def lu fàttali ko sa borom loola la gannaaw lu bon loolu yëmut ci bànneexu bakkan boo xam ne dafa jëm ci wàllu ni ko ñu bare bari di xalaate ci wàllu góor jigéen kese waxu kay loolu nga ca biir waaye dem na ba ci maandu ci lépp ci darub jàmbur soo demee bay bëgg wax sax ci nit nga xalaat ne sa borom a ngi lay dégg te am na ñuy bind li ngay wax nga waat sa làmmiñ alali jàmbor yoo xam ne dañ la ko dénk moo xam nite la ko dénk moo xam waa kees moo xam am réew la ko dénk nga dem ba bëgg caa jalgati loolee di dund ci sa xol ba muy bàyyi sa borom xel loola moo lay jaaj ji nga delluwaat gannaaw kon gëm yàlla ak ragal sa borom tabaraka wa taala moo la mën a musal ci shahwatu boo xam ne dafay tax nit ki tàbbi ci ay ay mooy yoo xam ne yu mel kon ñaari yooyu wax danaa del siwaat wax ne mooy ñaari gàq yi nga xam ne ñoo yées muy subuhaat ak shahawaat moom la ibnul qayim rahimahullah di wax ne képp koo xam ne mucc na ci ñaari yooyu mucc na ci lépp loo xam ne xeetu yàlla la wallahu taala alam kii dafay laaj mu ne lan mooy at képp koo xam ne dafa tuumaal boppam ci nifaaq dafa dem ba mu yàgg dal mu jàpp ne moom naafeq la ala kulli xaal ñaare loolu nit ki bu koy def dafa gis ci boppam loo xam ne moo tax mu di ko wax waaye na xam ne loola du ak naafeq na xam ne loola du ak naafeq maanaam su fekkoon ne ku baaxut la lu bon la muy def du jàpp sax ne lu bon la ndax nit ñi def yu bon yi ay martaba lañ am am na koo xam ne martaba bi mu toll mooy ñemewut a def lu bon am na koo xam ne marta bi mu toll dana def lu bon waaye su ko defee bootul sax du nelaw ndax njàqare ak tiitaange mën naa dem bay tuumaal boppam sax ci lii mu wax nii di wax ne naa fekk la am koo xam ne dem na ba àgg ci daraka boo xam ne wala yaasu billah su defee lu bon sax du yëg ne def na lu bon am ku ko yées koo xam ne su defee lu bon sax day ñëw ci grand place bi di ko waxtaane kon loolu ay martaba la ki toll foofu nag nga xam ne su defee lu bon day da koy naqari day dem bay tuumaal boppam di wax ne naa fekk la kooku na yëg ni imaanam mi ngi dund xol baa ngi dund na gaaw tuubaat dellu ci boroomam te wattandiko te bum bum naagu mukk jàpp ne dafa tàbbi ci naafiq xam ngeen ne lu baree bari eh, saxaaba yi léeg-léeg lu mel noonu daana leen gaar ñu dem bay sikki sàkk ci seen bopp xam nga ne Umar ibn al-Xattaab radiallahu taala am na bis mu ñëw téye Xudayfat ibn al-Yamaan ne ko yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na la turi naafiq yëpp est-ce man tudd na ma boole na ma ci ñooñu téye ko téye bu dëgër mu ne ko tudd la wala aquluha li ahadin baadak tudd la ca de waaye nag loolu du ko waxaat kenn lii ma la wax nii duma ko waxaat keneen ku ma ko laajee ci wàll gi it du ma la tontu kon dalay wan ne nit ki ngir xër gum xër dana tax jamono yu nekk muy sikki sàkk ci boppam waaye dañuy wax ne nit ki na góorgóorlu ba boole diggante alxawf wa raja suy ragalit na am yaakaar waaye ba mu naagu daal di jàpp ne moom naafeq la xam nga ne ci xadisu Hanzala itam euh, am na fu mu waxee mu ne naafaqa Hanzala moom ci boppam mu ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko man de ak naafeq daf maa gaar euh, mu ne ko lu xew mu ne ko bu ñëwee fi yow di déglu waxtaan wi dañuy fil ruuxaan gi ñuy dund ak ni mel buñ delloo ci kër ga ba kaf ak soxna yeeg doom yi day mel ne du woon nun mu ne ko loolu noonu ngeen war a mel ndax su fekkoon ni nii ngeen di mel su ngeen toogee fi man loolu moo moo continuer kon malaayika yi dañuy dajeeg yéen ci Madina di saafuwante ak yéen taala alam barakallah waaw defe naa xeer alhamdulilah waxtu bi jeex na li ñu soxla yàlla borom subhaanahu wa taala dimbale nañu am nañu ko incha allah te yaakaar na yéen a ngi ànd ak man ci loolu ñu ngi sant yàlla borom subhaanahu wa li nga xamee ne moo des ñaari kaddu la boo xam ne war nañu ñu bëgg ko wax léegi benn bi kaddu centre bi